marché yeeg promoteur bi nga xam ne ni euh, tey moom la ñuy dem seeti. waaw dañ ci jàll daal dem nag xooli ko kàddu yi nga xam ne dénk nañu ko bi ñu ko dékkee li nga xam ne moo di suñu micro daal di si dellusiwaat léegi léegi. Euh, Imosène amul benn problème ak marché Tëngéej au contraire parce que Imosène euh, dafa nekk koo xam ne dafa nekk partenaire u ville de Rufisque ak commune de Rufisque est ci benn projet bu mag a mag mag projet boobu mu nekk projet defaraat biir Tëngéej. ima seen nag am ci benn wàll bu nga xam ne mooy ñëw defar fa defaraat marché bi euh, yokk capacité d'accueil bi euh, dolli fa ñaari centre commerce commerciaux ba pare def fa ñetti tour de vingt niveaux euh, ci benn place bu nga xam ne ñu ngi koy nar a dénommé le carré d'or loolu nag buñ ci yàlla dimbalee ba ñu àgg ca mu nar a nekk benn benn projet bu structurant bu innovant nekk projet bu bees bu nga xam ne ce sera une première incha allah au Sénégal. en loolu incha allah waxtaan buy soog a tàmbale euh, ak aussi ci suñu yaakaar euh, commerçant yi programme yi nga xam ne moo jiitu Imosène ci booru marché bi nga xam ne am na ñu jógee ci alentour marché bi xam naa moom moo tax bi ñu yégee ne euh, waa mairie bi am nañu fa benn programme mu xëy na mu jaaxal leen mais yaakaar naa ni bu ñu yàlla dimbale ñu toog waxtaan ak ñoom waxtaan ak seeni responsable wax leen bu baax a baax li ñu fa bëgg a def euh, li mu li leen nar a indil li mu nar a yokk ci marché bi mais surtout li mu nar a yokk ci Tëngéej euh, li mu nar a indil doomu Tëngéej euh, jàpp naa ne programme boobu xëy na tey yaakaar naa ne sax ñi taxaw di wax ci sama yaakaar ñoom ñoo nar a taxaw pour défendre projet boobu jàppale ñu ci nit ñu war a jàppale pour que projet bi ñu ànd si ñëpp parce que projet bi ci li ñu dégg ñun ak waa marché bi du mbirum jaay suuf du mbirum jënd suuf mbirum partenariat la bu nga xam ne dañ ci ànd ak communes yi communes yi ñu teg teg teg seen i suuf seen suuf yooyu ñun ñu indi suñu xaalis euh, def ay ay immeuble yoo xam ne ay immeuble yu mag a mag la yoo xam ne Tëngéej soxla na ko ak sax lu dul Tëngéej xam nga Tëngéej dañu am benn programme bu nga xam ne euh, mooy programme de rénovation de këri suuf alors programme de rénovation urbaine boobu euh, maire yi dañuy dañuy nekk di xalaat ay doomu Tëngéej nekk ci presque plus de 200 experts yu nga xam ne yu jógee ci seen ci seen assises yi Euh, mu am prolongement benn comité de gestion du patrimoine di liggéey pour euh, la conservation du patrimoine de de Rufisque ñu xalaat nag benn politique de rénovation bu nga xam ne il faut que ñu ànd ci ak ay privé yu nga xam ne ay privé yu am moyen lañu euh, ñun nag ci suñu parti li ñu concerné mooy marché Tëngéej bi nga xam ne li muy li muy cristalliser ci ay nit nit ñi fay ñëw ni ñu bare ñu fexee ba def loo xam ne dafay mën a yokk capacité d'accueil li fa nekk nii. tey euh, fi nga xam ne foofu la marché euh, jën bi nekk euh, bu ñu yàlla dimbalee dañu fay def benn batiment bu nga xam ne dafay dem ci cinq niveaux alors cinq niveaux yooyu benn R plus 4 la boo ci boole rez-de-chaussée bu muy cinq niveaux te bâtiment boobu mairie commune de l'Est moo koy moom te mairie bi ñi mu négocier ak ñun loolu nag moom la concerné li mu négocier ak ñun moom mooy fexe ba delloowaat ko commerçant yi ci conditions yi nga xam ne moom lañ ko jëlee jamono yi ñu nekk donc commerçant yi dans tous les cas lañ fay def bu ñuy toogee waxtaan ak ñun ñu wan leen contenu bi ñu waxtaan ak seen maire yi ci li nga xam ne noonu lañ leen koy joxee euh, jàpp naa ne bés bu ñu demee ba xam loolu dëgg dëgg dëgg ñoom seen ñoom seen wàllu bopp dinañ tax jàppale projet bi. muy kilifa yi muy ñi nga xam ne décideur lañu mooy ñi ñu ci échangé euh, ba léegi dañuy partagé ñun ak projet boobu te projet boobu dërëmu maire yi du ci dugg nii commune de l'Est dërëmam du ci dugg. commune de euh, mairie ville bi seen dërëm di ci dugg ñun ñooy lever financement yi nga xam ne moom mooy réaliser programme boobu yëpp ci programme boobu nag am na partie bu nga xam ne par exemple ñetti ñetti centres commerciaux yi y a deux centres commerciaux loolu ak benn marché marché bi mais commune de l'Est moom moo koy moom lu ko neex mu def fa alors ñetti tour yi ñu fay defar benn tour bi ville de Rufisque moom moo koy moom foofu aussi lu ko neex mu def fa vraiment je pense que avantage yi nekk pour Rufisque surtout. avantage yi pour Rufisque surtout parce que nag ku xam marché Tëngéej xam ni marché la boo xam ni. Mm. Euh, dañuy bañ la nga xam ni moo dal Sandaga dal ko. parce mm. que ci koor gi dem nañ seeti leen. Mm-hmm. déjà boo dee xool tabax yi ay tabax yu yàgg la. Mm-hmm. boo xoolee nekk waayu marché bi demoon nañ ci marché jën bi moment bi ñuy dawal li ci marché bi na mu na mu na mu nekkee baaxul. Mm-hmm. Euh, nañ fa nekkee sellul am na yu ñuy jooy yu bare bëri mooy amuñu congélateur. dafa ñàkkoon entretien voilà. léegi tamit ci koor gi euh, dañ leen a pousse parce que dañu jege géej gi de trop. Mm-hmm. ba parfois bu douche bi euh, yëkkati ko. Mm-hmm. daf leen di fekk si fi ñuy jaay. Mm-hmm. léegi mairie bi am na mu defoon ak ñoom tombé ak projet bi daal di ñëw mais il paraît que commerçant yi amuñu maanaam euh, information yu baax yi. moo tax bi ñëwee ñoom ñu ne dañuy jënd ak jaay dañoo jaay marché bi or que jaayuñu ko. maanaam échange la comme ni ñu koy faral di waxee. aussi maanaam site boo xam ne comme c'est commercial. donc lu commercial rek lañu fay def li ñu fa bëgg a def yaakaar naa ne buñ ko ko defee mhm. moo leen di gënal ci moment yi nga xam ne ñoo nga fay nekk waxtu waaye bërëb bu ñëpp yi dem war na fay liggéey ak ña fay ñëw war a am toppatoo ci ñëpp ci ñiy liggéey ci ñiy ñëw parce que PPP la xam nga bu ñu waxee PPP mooy partenariat public privé mhm. Mhm. mais problème bi ñu am ñun boo dégloo ni mu waxee nga déglu euh, ci koor gi ni nga xam ne moom la commerçant yi waxee problème bi li ñu am mooy gone sax boo koy sang sa doom sax boo koy sang da naan ko kaay ñu dem nga dëgg la waaye boo téyee ci loxo bi rek te xamul fa nga ko yóbbu mën naa jàpp ne da ko yóbbu ci néeg pour dóor ko. dëgg la mi ngi naan commerçant yi bu nu toogee ba wax ak ñun. avant la woon. loolu la ñuy wax plan Stra. cest à que les bénéficiaires da ngay toog ak ñoom nga sensibiliser leen ba ñu xam les tenants et les aboutissants. bu ko defee mu am appropriation ñoom ñu moomal ko seen bopp. défendre projet bi. donc en gestion élaboration de projet noonu la ñu war a def. Mhm. mais fekkente ne da ñëw rek xam nga boo xoolee par exemple. maa ngi wax sur les incendies de marché. Mhm. ñu ne ñan ñooy lakk marché yi kenn xamul kenn xamul. mais mhm. parce que duñ toog di waxtaan. pour xam bu fekkente ne da ngay toog di waxtaan ak nit ñi. Mhm. dañuy comprendre. bu ngeen jekk woon ba ci yàgg ngeen fii ci télé bi. ñu jekk ba càgg rek ngeen gis ñu génnee câble yi di génnee mhm. di génnee caméra yi muy dem ñu yàpp ci ay oto te kenn waxu leen dara da ngeen yaakaar da ngeen def dañ leen di waaj a dàq dëgg la dëgg la dëgg la loolu mooy problème bi mhm. mooy que Sénégal dañuy ñëw ñu bëgg a def lu baax mais tout ce qui se fait pour mois sans mois et contre moi mhm. loolu la ñu wax lépp looy def mu jëm ci man te diisewoo ci ak man damay jàpp ne lu may gàtt kon nañu profité ci lii waxtaan waat ñu waxtaan jamono yu buur dafa jeex xam nga réew mi li fi am léegi waxtaan ba juboo wat gaal ak yéeg yógoo waaw ñu bokk ñu ki ragal ci ci néeg bi nag ak kii wut fu mu fanaan dellool bunt bi waru leen a boole ba ci ba ci ba ci ba ci diine sax oustaz Papane boo dee liggéey ci bërëb war nga ko defar war nga koo defar yow ma fay liggéeyee ña fay fekk si it war a bokk surtout ay marché ak yooyu mu ngi noonu war koo defar laabal ko ba ñëppay ñëw xemmem fa ñu teg seen tànk. Mm-hmm. parce nit dina ñëw ci bërëb yàkkamti faa génn. xet xet dem fay fekk waaw mi ngi noonu rafetal yenn saa yi nga dugg ci bërëb boo xam ni romb nga bërëb boo xam ni Euh, la fa ne moo gën fa euh, fa nga toog yàgg fa mhm. Mhm. waaye la tax nit ñi xemmee xemmee mu leen mhm. mooy mooy mooy euh, ñàkk taaru bërëb ba ñàkk taaru bërëb ba ak ñàkk civilisé bërëb ba nit dafay ci sa ci sa dundin biir kër sa biir néeg alaaj baab ci sa yaram waaye sa bërëbu liggéeyukaay bi nga xam ne fa ngay yendu ba ngoon kooku war nga koo defar war nga koo setal war nga koo laabal daañ leen topp nag Pape Cheikh parce que duñu fi yem ak ñoom comme nag ko ci def duñ ko ci def promoteur bi pare na nga xam ne ñoom la àndal li ñuy faral di wax nag fa nga ñu jëmee xëy na fa nga ñu jëlee fi nga ñu jëmee ko gën mhm. euh, daañ fa yegg ak duñ fa yegg ñun daañ leen topp lu ci mënte am daañu toppit euh, fan la ñu ak ñi nga xam ne moom itam joxe na les bonnes informations daañ ko xooli moom Moussa bu ko defee moom itam mu indi li nga xam ne moo di version voilà mu gën a gën a mën a leer ci bopp euh, sunu xarit yi ak mhm. waa tëggee ceeg ñiy liggéey ca marché boobu ña fay dem jërëjëf Adjot Mati Dieng loolu mu marché yi dañuy tukki